ginnaaw bu santee suñu borom subhanahu wa taala julli di yonente bi alayhi salaatu wa salaam sant seexul xadim bu baax di ñaanal baax seex Muhammadul Muntaxa suñu borom gën ko yàggal loolu dem ànd bu wér ba lépp loo xam ne am na ko yéene liggéey seexul xadim ci lislaam bi mu liggéey ko te mu ànd ko mboolem njaboot gépp ànd ko ñun taal bi yëpp ci baax seexul xadim waaye noonu ñaan ne bu baax jëwriñu pàkk bu sell bi ci nekk di daara ko doosu di serigne ahmadou mokhtar mbacke ñu koy ñaanal baax suñu borom gën ko yagg lool dem and ko wër ba lepp lo xam ne moom sa amoon ko yene liggéey serigne Touba te magal yi nekkon ne mu àggale ko ba naan ay naali boppam te and ko mboolem jabar yépp ci barke sa xadim lay ñaan ñaanee baax suñu jëwlu ci kër Cheikh Mamadou mustafa di Cheikh Mamadou mustafa Mbacke mom serigne Ahmadou Mbacke mom serigne Ali ñu koy ñaanal suñu borom gën ko dimbali tek ko loxo bu baaxa baax ba lepp lo xam ci waajuram ba amono ko yene digel Cheikh mamadou Sa ci keur seigne am ci tundóoli bu liggéey ko dama ànd ko mboolem waajur yep ci barke Cheikh mamadou Moustapha non lañ ko ñaan ni mboolem ay rakam yep suñu borom defal leen fan gudd lool waa nag yaram ba mot bañ mot di seen yéene waajur ci barke Cheikh Khadim ñi gëna a ñaanal baax a baax Serigne Ahmadou Mbacke Tindori ak Serigne ali Mbacke ak seen doom yi nga xam mom mo leen do wuy mom mo leen fekk di Serigne amadou Mbacke mom Serigne ali ñu ngi leen ñaanu baax suñu borom gën a yokk seen xéewal ci ba sàqul muhammad ya suñu borom sot ay xéewal baax baax li seen doomu aadama ci kaw suuf xéewal yooyu daw baax siwaat ñun ñu ngi ñaan baax suñu borom defal ñu ko ci barke sewal xadim mu mel ne ñu ngi ci weeru mars weeru mars nag buñ ko tuddee rek xel yëpp lay dem ci 31 mars muy bis bi nga xam ne ci la sëriñ ab mbàkki dundoo di wujjee woon bis boobu nag ci weeru tubaab ñu fas yéene def ab ziar boo xam boobu nag mooy ziar bi nga xam ne dañ ciy gën a yeesalaat suñu pas-pas ak suñu ak Seexul Xadim ci kër moom moo waral ziar bi waaye de ngir tàmbali programme bi ak njëkkante ak wax bi danañ jox Serigne Ahmadou Gueye mi nga xam ne moom mooy wax ci kàddu ba Ahmadou Dieng Xaar bu noppee danañ jox soxna Ndeye Ndiaye mi nga xam ne moom lañ dénk lu jëm ci wàllum ziar bi ak li ñu koy doo ci lu jëm ci jigéen ñi moom lañ jox kàddu bi bu noppee danañ jox Serigne Mor Fall mi nga xam ne moom moo jiite commission finance bu noppee jox Serigne Cheikh Fall bu ko defee def waxtaan Amadou Gueye bismillah. TV. doo mën a mu yaaru kon nag nañ ko ñaanal rek suñu borom kàttanal ko wéral ko gën dëgëral ay cëram guddal fanam lool lool lool lool ba yéene li mu ci kër Ahmad Ndoon gi mu matale ko te ñu ànd koog moom baat sëñ Doi la ndax Ahmad neex ci waaye ñu def suñ dañ cee defoon suñu yéene rek ñu ngi taxawal foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ amul ngeen kàddu yi am na solo lool ñu gën a ñaanal baax baax ma jànxaar suñu borom gën ko yàgg lool dama am na bu wér ba mot lay yéene mbëgg ci barke sëriñ am barke ci dóor ñu ngi lay sant baax di la gërëm kàddu yi am na solo lool noonu rek la ko baax ma bëggee woon kon dañuy jox soxna Mbène Ndiaye mi nga xam ne moom lañ dénk lu jëm ci wàllum ziar bi bu ko defee mooy mu soññee baax ci lu jëm ci wàllum ziar bi soxna Mbène Ndiaye bisimilah. salaamaaleykum. feeñee rek te maa ngi jéglu baax nag kàddu gi nag lu ma tële la lépp lu ma jëf nag maa ngi koy jéglu baax mbooloo mi maa ngi siyaar ñëpp di bal ñëpp baax di baal ñëpp baax di ñaar sama ko tedd wax sàllam yàlla yëpp di leen baax baax siyaar bi rek xam na sama xam laay soññee maa ngi soññi képp koo xamante ne yaa ngi bokk mbooloo mi ak dégg sama kàddu ngi soññi ñëpp nag àdduna bi ñu jëm ne bu incha allah bu ko yàlla rek kon yàlla ñu ngi fas yéene siyaar ba yàlla dugal maa ngi soññ ñëpp nag di soññ sama bopp maa ngi jégalu bu baax nag kàddu gi nag moom lu ma tële la. xayral kalaam ma xalaat ma doon salaamaaleykum na ngeen def siyaare naa leen de walla arabaat xayru kalaamaa xalaa wa dal ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm kàddu yi loolu waaye am na solo lool soñña rek ni mu ko def ni mu ko waxee rek ci ñëpp ñu maase rek siyaar bi lépp loo xam ne ci daanam ci def rek yokk moo gën xaj na jamono yi demee loo xam ne moom laaj yi bari na waaye fi ñu koy def xam nañ ko bu baax a baax ndax ëllëg dañ ko soxla bu baax a baax muy fañ jëm kon ñu lépp lu ñu waaye def rek donte ak téeméer wala sax ñaar bu ko xeeb ndax li ciy def lu mu bari bari ëllëg lañ la cay fay. Tawane TV. Tawane TV. télévision bi dox ci seen bëgg-bëgg. muy diine ak jamono ak jamono. pour mën a am suñu vidéo bu leen fàttee abonné. bu leen fàttee ba classe bi. ndax moo leen di xew-xew ji. ak Sawane TV kumpa tàggoon naa